Connect Food agsi na nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay sa kër wala foo mënti nekk téléchargel application Connect Food commandé ci restaurant bu la waaw lu ëpp cinquante restaurant yu gën a mag biir Dakar ñoo nekk ci application Connect Food Connect Food daal boo bëggee sa restaurant di gën a fës wala nga bëgg a commandé vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept Connect Food mooy bu baax bi ku bëgg ay leeral téléchargel Connect Food Play Store wala App Store wala nga woote ci 77 821 08 27 wala 33 840 43 29 73. Jollof Chicken ak croustillant teneer commandel rek ñu livre la. Jolof Chicken moo leen di may li ci yéenekaay yi mbokk yi dal leen ak jàmm ñi doon laajteel ndaamal Kajoor di Idrissa Seck suñu demee ci journal bi le mandat daañu ko fa fekk yéenekaay bi xëy ñoo wax ne niki démb nag la tàmbali ñaareelu session bu conseil économique social et environnemental bi mu jiite naka noonu ci la moom Idrissa Seck dugg ci wàllum pétrole ak gaz da wax naan bés bu ñu tàmbalee exploiter yooyu les ressources lépp li nga xamante askanu Sénégal a gis le témoin yéenekaay xëy di témoigné ne Idrissa Seck moom na ne bés bu ñu tàmbalee exploité gaz beeg pétrole mi nekk ci mim réew nag lépp lu askan mi doon mettre lu tey ëllëg daañu ko mën a fàtte ñi fàttewul woto yi a jox ngir ñu mën a nekk ci pencum réew ma nag naka noonu daal dinañ woote budget présidence ak budget bay tax assemblée nationale mën a fonctionner waa budget bu conseil économique social et environnemental ak bu HCCT opposition bi dafa lànk de du ko woote yéene kaay bi nañu ci mbirum woto yi nag dañ ne du waaye loolu nag député yi fare ci opposition bi yëpp dañoo lànk bañ ne loolu waru mën a nekk dañ leen di jox ay oto ci A wala ci B l'évidence yéen kaay moom xëy ñoo wax naan dem assemblée nationale moom toj na rajax waaye tojun wa nag ci xam-xam ak weccante xalaat la waaye du ci saaga ak a dóorante ay kurpañ Serigne Moustapha Sy di njiital PUR nag moom demul ci assemblée nationale waaye jamono ji nag dafa mel ni bàyyi na ay gëtam yëpp ci palais de la république critique yéen kaay xëy ñoo wax naan Khalifa Sall di njiital taxawu Sénégal su mënta nekk ne moom rek mën a copp yëf ci wàllum élection bi ñu jëm enquête xëy wax naan li leer ba leer mooy jamono ji nag candidat ñoo ngi génne fu nekk ba tax na moom Sénégal nar na jax président Macky moom dafa mel ni waxi politique jiteelu ko ak waxi élection li ko yitteel mooy na lay def ba jaay destination Sénégal tontu laa ci Dakar Times yéen kay naan président Macky Sall nekk njiital Union africaine ni ki nag daan ko invité ci forum investissement dëkk bu nekk en voie développement te amee na ak gaz bu doy niki démb ak barki démb nag le quotidien duñu xamal ne fii ci ndakaaru lañ doon amal forum bi ñu dégleel wàllum paix ak sécurité ci àdduna rawatina ci Afrique naka noonu Aïssata Tall Sall yore diplomatie Sénégal nag jot na caa wax ne war nañu xalaataat coppi doxalin diggante pays africains yi ak seeni partenaires ci tribune yéen ba léegi moom ministre bi jot naa wax ne Afrique a a a ndax loolu du indil gàllankoor ñenn ñoo xamante ni moom la ñuy défendre te fare ci biir benn bokk yaakaar tontu la ngi ci le vrai journal yéene kay bi xëy ñoo wax naan président Macky Sall kañ dafa xamul jàngoro ji muy di ko bañ moo ngi ci biir benn bokk yaakaar ndax bëri na ñoo xam ni suñuy défendre président Macky Sall ci réseaux sociaux yi lañ koy jaaree rawatina ci ay live di saaga ak xas opposants yi ci ñooñu gën nañ cee ràññee Fatoumata Ndiaye Fouta njëkk ne le aussi dans Benno li yenn ci cadre yi fare ci APR di tëgg jamono su jëmee kaw du tas Bokk Yaakaar tonto lang ci lii quotidien yéene kay bi xëy ñooy wax naan Aminata Sow nekk cadre fare APR wax na 2024 nag Benno Bokk Yaakaar du mën a dem élection ndax li coalition bi di doxee jamono ji nag ci tas la gën a jege waaye nu bennoo ni turam jëmee élection 2024 sariyaay ci dëkk bii di Guédé Bousso rawatina yari yoon yi ñuy imposé ñii mooy la bi la jour xëyee tey yéene kay bi xëy ñooy wax naan loolu yàgg na fa kañ waaye niñ ko filmé nag daal di ko wone wax ci biir yéene kay bi waa commission bi ca dëkk ba ñoom itam jot nañ leeral ne commission ba ay mag a fa nekk nit ñoo xamante ay borom xam-xam lañ xam lislaam moo tax ñoom dinañ ko jëfee na lislaam digalee émigration clandestine maanaam tukki jaaree ko ci gaalu loote yi jural na loraange askanu Sénégal ci atum 2021 ñu génn réew mi quotidien xëy joxe xayma ne junniy sénégalais jot na ñàkk seen ci géej gi Papa bu yeboo na dem géej dem entraîné bu baax ndax combat bu rëy la am ak Siteu

xanaa xamul li daloon Samba ba tax baayam naan ko bàyyil naar bi bàyyil naar bi su ko xamoon leer na ma ni du jël ñaari million gu magam naan da koy dem jouer ci pari foot l'observateur yéen a kay xëy ñëw wax ni Mor Fall magam moo yëkkati fukki million daal di ko koy jox ngir mu yóbbul ko ca banque nag moom xale bu góor bi jàpp ne war na caa mën a liggéey ba tax mu roppe ca ñaari million dem jouer ci pari foot waaye moom dafa mujjee perte xaalis boobilee bi moor bàyyil naar ci kën moo leen doon may li ci yéen kaay jolof ak croustillant te neex commandel rek ñu. Connect Food agsi na nga nekk sa bërëbu liggéeyukaay. sa kër wala foo mënti nekk téléchargel application Connect Food commandé ci restaurant bu la neex waaw lu ëpp cinquante restaurant yu gën a mag biir Dakar ñoo nekk ci application Connect Food Connect Food daal boo bëggee sa restaurant di gën a fës wala nga bëgg a commandé vingt quatre heures sur vingt quatre sept jours sur sept Connect Food mooy bu baax bi ku bëgg ay leeral téléchargel Connect Food Play Store wala App Store wala nga woote ci 77 821 08 27 wala 33 840 43 29 73.